Talão, balão d'or, genre, Messi, Chris, kaka ci nopp duga dugaaf looy maaleen téeri tigi taka ni kuy kataa ci biir kadaar man la akay kadaaf léegi booy dañu sakkan na gars yi dafay kodaa samay fan maa di toogal lañuy coba padaa soo si bokkul yaa ngi dëggee lekk shit kaka musuma xar ci rab bi merkoog wala village apart du mbedd moo berse ok joué fi sa papa xaw la te xaw ma sa coéquipier nee bébé la j'avance avec mes petits pieds lépp la ñuy daf di ñàkk lu mbedd di gett man dëbb daax neexee moom ma dàqal bépp étiquette ëpp ñu baat wante doo gis ñu seug di seug man fi ma jëm de xamna ni ñu may bëgg du ñëpp li ngay rap mun naa wax. Salam la famille vous avez tout musique comme ça moi c'est Paps c'est Maybe, lui c'est NF. on vous donne rendez-vous ce vendredi 27 mai pour la sortie de notre EP sur Bad Radio sur le film ce sera très bien voilà Inch'Allah on va bien Saka Saka ça avec toute la famille il y aura aussi ADN et RKI moi-même, Paps et NFTs, voilà. Et ce qui reste, ce sera en exclusivité sur la vibe. Voilà. Donc, Euh, ça va être hyper, feel like Pablo, rap reglano, magno, andak tango, brise 6 parcours zéro